jur ak xel wu ñaaw ci yenn ci ay candidats yi nga xam te ne ni d'ores et déjà ñoom mënuñ tàmbali wax ne ah ñu ngi jëm ci fu metti muy 2024 ndax galgal yi tàmbali na. waaw effectivement man li may wax rek mooy d'abord ça a surpris mhm. beaucoup de gens. man ça m'a parce que gisuma benn paramètre politique ba war mën a tax tey ñu pousse. parrainage yi au delà de le 28 août ba le 27 septembre gisuma ko. ils ont pris comme prétexte que modification loi L29 bu constitution bi bokk na ci sa pertinence ak yenn détails administratifs yi tax ñu repousser ko mais ak lu ñu mun ci wax rek amul lay parce que quand on dit que le respect du calendrier électoral mooy ñu respecter élection yi moment bi ñu ko war a def décret bi nga xam ne moom moo war a valider élection présidentielle yi déjà amoon na benn retard ba ñu bëri doon ko kaas après par la suite ci la génn deux mois après bu ñu nee respect du calendrier électoral mooy respecter tous les paramètres yi nga xam ne mooy yóbbu nit ñi ci élection kon kon euh, bi repousser date bi bokk na ci manque de respect du calendrier électoral. Mm-hmm. mais argument yi nga xam ne état moom la joxe sur le plan administratif mooy modification ah. loi bi. paramètres administratifs yi xëy na dañ leen ko koy nangul. Mm-hmm. j'avais en profité Serigne kan ak euh, Aladji Saloum Dramé depuis direction générale des élections oui. quand on parle d'organisation d'élections mm -hmm. on passe par d'abord conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy valider les parrainages mm mais le noyau des élections au Sénégal mooy direction générale des élections lépp loo xamante ne état da koy organiser ci élection di ci jokk ak ñoom ba ci parrainage bi mmh. am nañ si rôle bu ñu jouer parce que am na ci loo xam ne foofu si boppam lañ koy lijjantee li tax ma ma ma koy tudd damay dem souvent ci ñoom euh, tout fait pour que mhm. Saloum drame bi nga xamante ne euh, bokk na ci ñi nga ne seen loxo du jóg ci élection dama toog ñuy waxtaan maak moom Saloum Dieng astafurlah maa ngi koy jéglu El Hadj Saloum Dieng maa ngi naan Dramé rek sànq ba léegi biñ toogee waxtaan ma ne ko man dama gis tout bu élection amee dañuy indexé direction générale des élections kilifa la fa nag moom Saliou Dieng mu ne ma puy ma ne ko ah, mu ne ma ñun administration la ñuy liggéeyal pouvoir bu ñëw da ñu fiy fekk sooy dem di fi bàyyi kon amuñu sañ-sañ ak droit di par parloo fenn mais conditions yi organiser élection ci ay taxes la ak ay lois ak képp koo xam ne respecté nga procédure yi muy parti politique wala mouvement soo ñëwee amuñu benn njëriñ ak benn sañ-sañ di la bloqué parce que ay citoyen sénégalais lañ ma demaat ci Serigne Kane mi nga am ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu yenn bagage yi logistique bi ils ont tous eu la même position et dama fa gëstu ay kayit parrainage bi ngay gis ñoom bari na ci loo xam ne dañ leen ci doon boole mais seen loxo te ciy dugg pour une très bonne transparence mm-hmm. mais tey am na benn côté bu fekkente ne parti au pouvoir da ko pousse pour am parrainage. Mm. damay jàpp ne loolu moom du ma ko kii à cent pour cent parce que parti au pouvoir dañoo yor ay parrainage ba mu doy. absolument et puis même parrainage. ba desal loolu moom ñoom moom parrainage du seen. dama ne ah, ah, dama ne ah du am nañ quota maire am nañ yor nombre bu gën a. bu dix parti au pouvoir am nañu dix parrainage yu mat. te mënuñu ko jàppee gal gal damay wax d'abord ñoom seen potentialité. Mhm. ak seen taxawu ci am. Ah, parrainage kon ñu pousse ko ñàkk koo pousse. Mhm. amu ci prétexte. nga ñëw ci yenn responsable yi ku mel ni gëm sa bopp bu Gueye Dany du am problème mu parrainage parce que donte ay doublon lañ ko retiré woon lañ ko lañ ko bloqué woon su wala yenn manquement yi ci diggante bi defarwaat na fi Malick Gakou aussi il n'a pas ce problème c'est pour dire que y a des leaders yor na mbirum parrainage du seen problème. dëgg la nous avons près de soixante actuellement soixante candidats yooyu. Ah, maa la wax fii ah, ci biir soixante yi nag dina am ñu am jafe dama ne maa la wax fii ne la boo deful ndànk sept candidats dong la élection présidentielle yi am sax duñ ko am cinquante yi. ci soixante yi dama ne am ñu ci du am kër du am. élection présidentielle 2024. Mm. du jàll boo deful ndànk. waaw ah, maa la ko mais sept nag néew na. parce que parce que non xam nga lu bien voulu quand même. ñu am benn dizaine wala benn quinzaine. non xam ah. déclaré ñu ngi de amoon nañu douze a près de soixante candidats déclarés la wax. mais sur soixante sept sept day néew. soixante yooyu bu ñu doon séddoo parrainage Sénégal. Hmm. na ñoom ne ñu am parrainage. mais loolu moom dëgg la. plus de candidats. que de cartes électeurs plus de candidats que de parrains oui. c'est pas possible mm-hmm. le scientifique les ténors les ténors ténors yi mhm. xam nañ fi ñu jëm li leen dese bariwul mhm. la reste nag mooy ku mu neex am nga ci droit déclaré mhm. am nga ko ci mais tey matuwaay bi nga xam ne moom moo war ci état du Sénégal laa koy wér mooy yóbbu na ko le 27 septembre na fexe boobu bu mu ko rombaat parce que mënutu koo romb. bu ko rombaatee. non parce que six mois bu desee ci élection kenn amatul droit laal. lu jëm ci mbirum fichier électoral wala lu jëm ci wàllum électoral. kon environnement paramètres yi nga xam ne moom la état du Sénégal war a teg pour ñu dem ci ay élections yu flexible yu transparente yoo xamante ne day inclusive Sénégal dañoo tam di wax élection inclusive responsable boo ci invité tale mu ne non il faut que des élections inclusives. transparente inclusive mooy na ñëpp bokk. te ñoo la gën a xam ne. am na ñoo xam ne bu ñu doon dugg ci bàmmeel duñ bokk ci élection. très bien donc des ñoom it bu ñuy communiquer inclusive inclusive inclusive ñoom ñooñu di wax inclusive sax xam nañ ne du ñu bokk moo dañuy insister ci baatu élection inclusive la plupart du temps koo def muy insister ci leader il faut des élections inclusives mais ñu am yàqin ne ñoom danañ jàll baatu inclusive rarement lay génn seen gémmiñ. c'est pour dire que tey matuwaay yi war a jël. yenn parti yu ngi koy jël yenn coalition yu ngi koy jël état bi pare na bosam ba mu mot sëkk ñi ñi ci nar am problème kañ mooy ñi nga xamante ne saa waay plus de cinquante candidats déclarés yoo xam ne xamuñu Sénégal fu mu tàmbalee ak fu mu yem. très bien alors. Euh, bëgg naa si yokk tuuti de. waaw lu ma si bëggoon yokk mooy euh, Mohamed euh, il faut gars yi xam ne nag configuration bi ñu jëm nii si année si élection 2024 bi day changé nous allons vers une nouvelle configuration. ca à dafa bëri fuy am ay yëngu-yëngu yoo xamante ne parrainage bi mënul nekk comme ni mu demee nag Sénégalais yu bëri bàyyi xel de un su ma déggee souvent si plateau télé ñu bëri di wax ne pouvoir warut am problème parrainage mais ak ban pouvoir ak ban pouvoir pouvoir boo xamante ne fi mu toll nii naa la euh, le chef du bateau moom nee na quitté na le navire muy Macky Sall bàyyi na du loolu la wax mais ñi nga xamante ñoom ñooy déclaré ñoom bul fàttali ñoom seen bi amuñu consensus amuñu jubóo te man damay nekk sur le terrain di gëstu. ñu ngi defante ay coups ñu ngi reyante léegi nag il faut que nga xam ne tey waa Benno Bokk Yaakaar bu ñu choisir tey benn candidat du ma tudd tur mais ñu choisir kenn mais ñeneen ñi s'il s'oppose à sa candidature ñoom il faut ils vont faire une contre campagne de ça sa ça se passe sur terrain wax ji mooy en réalité parrainage moo convaincre Sénégalais yi parrainage convaincre Sénégalais yi ni koy defee. Mhm. dañuy wax ay wax problème doublon. saa bu saa bu ñu bu ñu jógee si wàllum problème moom par ñu bëri toog si télé yi commencé expert commencé wax ne lii ne yaa dysfonctionnement waxuñu Bougane Gueye Dany lan la ñu wax mooy wax ñu waxee waxi doublon wax ñu ay waxi signature mais moom si bopp ak ay expert weddi lañ ko waxoon si conseil constitutionnel te du moom kese ak ay moroomam waa wax ñu woon fii ne ñoom il exige à ce que ñu am li nga xamante ne mooy audit sur le fichier électoral fi fichier boobu bu ñu xoolul képp ku parrainage woon daawaati jéeg est-ce que du la téye ren parce que question de parrainage c'est question de fichier la fichier bi mooy question d'enregistrement la tey man buñ ma enregistré si Bamba Sall avec Sall avec SA benn L fii ba l'an deux mille trente cinq saa bu ma andee même loolu lay indiwaat tant que modifié wu ma ko loolu la waa PDS wax est-ce que réellement benn révise boo xamante ne révision boo xamante xool nañ fichier bi ñan doon téye lan la leen téewee est-ce que convaincre na leen est-ce tey jii nii bu ñëpp di dugal kan moo fa nekk pour expert ba moo fa nekk di gëstu di xool li baax ak li baaxul. d'accord parce que loolu dafa am ku ko war a gëstu. est-ce que vraiment y a des li nga xamante ne mooy les acteurs qui sont là est-ce que y a ce qu'on appelle une honnêteté intellectuelle bu war a ne wala parrainage. ceci étant bu fekkee ne am na tey ay partis yoo xam ne bokkuñu si c'est des ñoom bu ñu jëmee dugg si beneen côté di jël ñooñu ne ñoom la ñuy parrainé est-ce que vraiment on tiendra compte de ça c'est-à-dire pour lan la fii comme li nga wax waa mooy parrainage dañu ko war parce que ba léegi sénégalais convaincu leen si ñu koy defee. kon nag bu ñu jéemee bàyyi suñu xel am li nga xam mooy une vigilance xool bu baax am na ñoo xam ne ñu ngi yaakaar nañu am nañ parrainage. Hmm. mais lu bëree bëri ay faux dossier la ñuy dugal parce que problème Sénégal. c'est un problème d'administration problème administration la am Sénégal dossier boo gis boo ko gëstoo ba biir y a toujours des lacunes et des erreurs dedans. très bien et loolu moo am. et puis même bu dul loolu sax techniquement parrainage li tax baaxul. Mm. mooy cette affaire de doublon. xam nga population bi amuñu préparation wu ci système parrainage. Mm. moo tax dafa am ñoo xam ne jeu d'enfant la ci ñoom ku ñëw ñu parrainé la. jox la seen carte d'identité nga relever leen alors que jaf defal nañ ko président defal ko Bamba mais loolu mooy indi problème mu doublon yi au niveau du conseil constitutionnel et aussi y a des baana baana du système des parrainages am na ñoo xam ne dañuy collecter comme man mii mm. dem collecter lu bëri ñëw jaay ko candidat mën naa la ko jaay jaay ko puy jaay ko président jaay ko bamba yooyu yëpp am na ci donc yooyu problème yooyu mooy gën a indi problème candidat yi te it par ordre d'arrivée la imaginel ñi njëkk a jiitu dix premiers yi peut-être ñooñu am nañu chance mais après li ci topp ñooñu ñëpp mën nañoo ñëw ak ay doublons yu dul <laughs> mais am na je que am am na ay amélioration par rapport ak ni mu meloon 2019 mhm. parce que mhm. doublon léegi tu pourras on te donne la possibilité de changer de changer alors que Euh, en deux mille dix neuf amul woon boo jëlee ñaari nit mën nañu la rejeter ndax lool donc et je pense que aussi les représentants des candidats seront présents. donc pour pour pour mën a suivre. donc am na am na amélioration yu ñu ci def. mais mais mais mais problème mais yi dina jafe. mais problème bi mooy aussi il faut que boo nekkee candidat aussi nga am une organisation sérieuse peut-être ah. munoo nekk candidat dem di jënd ay doublon. non génn ah xoolal ma naan jënd. jënd pare jënd pare naa na ci nag mooy sort de l'argent pour pour ah, acheter loolu mooy yow li ñu lay jaay amoo. amoo benn yàqin ne lii baax na wala baax mhm. donc man jàpp naa ne bu bu fekkee nekk nga candidat mais war nga am parti boo amul partie war nga am mouvement boo xam ne c'est assez organiser ci dëkk euh, Sénégal yëpp ba nga xam ne boo buggee parrainage même sur quinze jours ou sur vingt jours vraiment ku nekk fi nga dëkk mën nga dem sur le terrain collecter ko nga rassembler ko am sa kii mais su fekkee ne nag yow appareil bu ndaw boobu yow amoon ko. sincèrement da ngay da ngay waxandoo. alors oui waaw. boo xoolee. parrainage dafa yàggam ci élection au Sénégal ndax bu njëkk. parrainage bi amoon mooy parenage boo. xamante ne indépendant la. dix mille parrain dañ la doon laaj. soo xoolee par rapport ak dialogue bi amoon biir présidence am na ci ay réformes yoo nañ ko ci wàllu parrainage bi. Hmm.